acca salaamaaleykum mbokku internet yi bàyyi xel seen site bi di wasaare ginnaaw ba ñu leen nuyoo tey ji nag ñu ngi fii si biir Pikine li ñu yëkkati nag mooy dañ ñëw seet si famille bi nga xamante ne ni naqar ak moo daal dal seen kaw seen doom bu ñuy woowee Ousmane ay atam toll si juróom benni at moom moo daal di eh, ñàkk bakkanam li ko waral nag mooy bâtiment moo daal di daanu seen kaw comme daanu si kawam comme ni ñu koy defee ñun waa wasaare mbir bu amee dañuy def déplacement dem ba ci famille bi nga xam ne foofu la amee ñu tàllal leen suñu micro waxtaan ak ñoom ki ñu toogal ni nag mooy yaayam koy bàyyi rek mu daal di nuyoo baa di ko dugg si waxtaan bi yaa booy nuyu naa la. fay la. yaa ngi si jàmm. sant rek. tur bi naka la. Assu. Assu yaay yaayu Ousmane. waaw. d' accord Ousmane moo daanu si kawam est ce que mën nga ñu ñëwaatal ci mbir mi naka la demee. Ah. kii de netti na trop. netti na. sama doom ñun maa ko jur de. man metti na demee liggéey du bàyyi xale moom kes kër gi ya dem sama xel day ñëwaat soo bàyyi si kër gi sa xel day ñëwaat loolu tax soo demee liggéey ma yóbbaale ko papa amuguma liggéey maa ko jàppal papaam maa ko jàppal papaam ya neej dafa seer soo amulee jàppal ma bu baax yàlla moo la fay quatre heures du matin ma dem ma yeew ñu sama doon ñëpp ma sangu ko keneen ki di jàng ma solo yére ma ànd moom ñu ma gunge ko fa école mu ne demal magam ne demal dem ma gunge foofu mu ne toogal fii man mii demee dem liggéey ma ànd ak rakkam waaw léegi kero ma ñëw fii xale bi mu ne yaay daa daw mu ne yaay ana ndekki bi mu ne xaaral ma indi kii ndekki bi waaw Ousmane Ousmane mu ne xaaral ma ñëw ma kii ndekki ma jënd na ma dem ma dem ma jënd kii ndekki bi ma ñëw mu ne ana Ousmane mu ne Ousmane mu ne toogal wi xaar ma fii Ousmane nangul toog foofu ma gis gis ma Ousmane man mii lekkuma ko mbuur sax Ousmane lekku ko café tuur na ko sax mu ne ana Ousmane mu ne moroomam lay ànda mu ne dee football mu ne toogal mu ne gis Adama na yaay Adama mu ngi fii ma dem foo Ousmane du sori sax keroo daa gis si mbokkam mu ne Adama mu ngi fii Ousmane mënumaa gis foofu côté bi sax du dem foofu sax man mii sama wetu lay kii toog waaw su ma paree ma ñibbi si. lan ngay liggéey. kan demee fóot soo ko waa kii bi waaye fay ko ma ma jënd kii njaboot ma fay ki luwaas ak kii bi sama jëkkër daa sonn ba sonn ak man ma bàyyi añ bi. moom kese ma toog añ mu ne maa dem so ah, mu ne xale toogal fii sa papa xale du nangu toog xale du nangu toog. duñ nangoo des ak seen papa. waaw man mi kese la de soo jooyee man la soo jooy soo yiifu man la man maa ko defar ba nga dimbal ko yàlla moo la fay yàlla. d'accord makan nga mën nga ñu ñëwaatal ci bâtiment bi naka la daanoo ci kawam. Hmm. si kaw daa dem daa toog ak moromam ñu ñetti xale la muy ni toog foo mu ne dee man mi man jënd mbuur bi gisuma Ousmane mu ne daa dem foofu ma ñëw ma daw ma gis sama doom de tëdd si suuf ma yëkkati Ousmane nangu taxaw sama yaram yëpp dee tilim ma ma sama ser ma sànni ko moom ma muur ko ma tourné nii ma daanu ñetti yoon mu ne Ousmane Ousmane dee na mu ne deewul mu man lee nax ma ni man la xale xale loolu la ko kii nee nax xale bari bii makku jàmm la ma maa ko gis sa mbott Ousmane dee du ñëwaat ma kii ma daw ma daanu he metti na torop jërëti dee jindi rek dee jindi sama doom rek he yaa boo taxaw ma jooy metti na torop metti na fu ñuy jàppale ko yàlla yàlla fay man mi loolu laa am. si kër gi nga doon fóotee noonu bâtiment bi foofu la nekk wala. déedéet du foofu de. Ah, du foofu. daa dem foo moromam foofu. benn kër la. benn kër gi du fóot foofu. benn kër la. foofu daa sori foo man ak fu waa daa sori foofu sax. waa waa mu ne damaa gis. yu yuuxu ci kii mbedd bi mu ne eh xaaral ma jéem kii si biti dem na dem na moromam ma xoolal ba xam fo kii xale dee yuuxu de ak kii magam dee yuuxu xam lu xew foofu ma wàcc si kaw escalier bi balaa ma wàcc kaafu keneen kii moo ma yëkkate ma daanu si kaw. si kaw xamoo moo kii. waaw billaay barke yàlla ko sax. ma daanu ci kaw escalier bi ma raam ma raam ma ma dox sax dama tiit ma daanu ma daanu na ba pare ma raam ma génn nat si biti mu ne ana Ousmane ma gis nit waat nit sama doom lay taxaw foofu sax ma gis si sama doom ci kaw te kii suuf ma yëkkati ko ma foog ko sama yére yëpp tilimun ma ma ko ma ee eh, yaa booy metti na sama doom moo ma sonal torop metti torop naka nga ko dundee woon nga nekk koo xamante ne nii euh, maanaam liggéey bi ngay liggéey nii mu nekk liggéey boo xamante ni tamit neexul mu nekk li nga xam ne moo di fóot waaye comme ni nga ko waxee rek bëgg a jàppale sa borom kër ak bëgg loo xamante ni danga koy dundalee sa njaboot ba sa doom mujjee ci ñàkk ba naka nga ko dundee woon. waaye dimbala ma ko rek dimbala ko ak yàlla yàlla moo la fay soo amul kër kii bi njaboot kii bi amul lekk kër gi. ma jug mënuma toog kër ma jug wala ma dem ci bitik bi mu ne ma albal ma foofu ma fu amul xaalis ma jokko ko noonu laa demee noonu laa demee ba tey fa sama doom dee na foofu yàgg na eh? fu mu kii fu mu umbe nii lay fo fo ma juddi kii xale bi moo toog papa si kaw papa waaw mun a atsu bàyyi fóot kii mun a mun maa bàyyi kii fóot xale lu mu lekkalee woor fa ma jug papa amul liggéey maa ko jàppale yëpp ne dafa seer luwaase metti na jamono ñun ñëpp seer na ko yokk na ko mooy dimbal ko yàlla moo la fay Ahmed Ousmane moom mu jot na dugg école wala. jotul la école bu tijjee ma yóbbu ko mu ne des na tuuti mu ne xaaral des na tuuti maa ko yóbbu ak papaam sax magam di jàng mu ne des na waa mu ne eh, des na tuuti ma xaaral tuuti loolu tax kii lay jàng xaraab waa arab lay jàng suur boobu jàngul arab mu ne daa daa jéen tax ma ànd ak moom mun maa bàyyi ki xale bi moo kes magam day jàng fu ma liggéey magam foofu lay jàng loo tax su ma pare ma yóbbaale benn yoon ma yóbbu xale yépp ma dem sama yaay netti eh, na torop sama doom ana mu tey jot ngeen ci li nga xam ne moo di koor bi ba dencu ngeen ko wala. denc na ko ba pare. waaw denc na ko barkaat dem. ko dundee en tant yaay nga tiim sa doom bâtiment daanu ci kawam ak euh, loolu nu mu mettee ci xol. Hmm, maam metti na de. Hmm. waaye metti na torop ñëpp. Eh, jàppal ma rek. bi nga gisee sa doom ban yëg nga am. Hmm? ma ne bi nga gisee yëg-yëg nga am bi nga ko yëkkatee ay tànkam bañ loo yëkkati lu nekk mu bañ ban naka nga ko dundee. Eh, man mii mu ne yàlla moo ko defar nii eh, man mii dama sonn sama doom sonn na. am borom kër gi sonn naa amut loxo amut bariwul kii loolu tax ma jug chaque jour borom kër gi day ñëw keneen kii xaw ma kii dee fay xaw ma su ma yore ma jokkali ma seddoo yëpp ma def noonu lay dunde ba léegi ak sama doom yaa booy na metti na trop. Eh? jaale bu baax a baax tey lan nga bëgg sénégalais yi ñu wax pour ñu jàppalee la ko. ami dama jàppale ko amul kër ma toog ak xale ak njaboot noonu lay defee noonu la am. masa comme mbokku internet yi ngay yi seetaan site bi di wasaare gis ngeen ko mu nekk loo xamante ne ni lu méttee métti la en tant que yaay gis ngeen li nga xamante ne ni yëg na ko waaye nag bâtiment daanu ci kaw doom mënoo koo yëkkati mënoo def lenn loo xamante ne mën na ko sauver mu nekk loo xam ne te métti na métti na trop waaye tamit bu ngeen gisee eh, yaabooy bi li mu wax rek eh, moom li ko dugal ci fóot bi mooy jàppale li nga xamante ne ni moo di borom koram kon mu ngi ñaan sénégalais yi képp koo xamante ne ni rek mën nga ko jàppale si lu mu mën a doon nga jàppale koon ndax euh, lu muy dund metti na trop nga teg ci ñàkk sa doom ñu ngi ko koy jaale bu baax a baax yaa booy ñu ngi lay jaajëfal yan kàddu ngay tàggatoo. Hmm? maam amin sama bu baax hmm? ma seen ma nuyu ko yëpp ñu kon gis ngeen ko damay daal di jàll rek jël ki nga xamante ni moo di papay xale bi moom tamit mu sànni ci ay quelques kàddu bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko jaale tamit ki nga xamante ni moo di doomam ñàkk metti na lool bu ngeen gisee rek li ñu mujjee def fële ca nga xamante ni moo di géejawaay ki nga xam ne daa jël doomam ko mu loo xamante ni lu doy la tey gis ngeen ki nga xamante ni dafa ñàkk doomam kon ñaar yooyu rek mën ngeen ci def jàngat bu bëree bëri xalil damay tourner tuuti rek jël ki nga xamante ni moo di papay bi moom tamit mu indil ñu ay kàddu seede ak naka la yégee mbir moom nga xam ne moo daal doomam. Euh, salaamaaleykum papa nuyu naa la. fay naa la. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm kay. d'accord gannaaw ba nañ la jaalee ki nga xamante ni moo di sa doom ji naka nga ñu mën a ñëwalaatee si fin yi naka la demee. Ah, affaire daal xam nga man damay liggéey guddi. bu ma ñëw des fois damay juyoo ak ñoom. keroog dem euh, alkamsa bi dama juyoo ak ñoom. mata sax benn jigéen mu ne ma sa sa njabooti ñu ngi noonu di dem ci arrêt bi ma dem foofu ma gis leen balaa ma yegg rek dugg nañu woto ba pare soo ko dem affaire yi Icotaf la am ma ñëw fii ma nekk fii ay ma tëdd ma yeew ay une heure rek ñi ñëw mu ànd ak yeneen groupe jigéen ñi ñu ne ma sa doomu am na accident sa poon ñu ngi lay xaar noonu laa jóg nii rek ñu dugg woto dem foofu dëgget gaañu na pare. fu mu ko daaneel rek foofu la gaañu ñu expliqué ma ne ñu ne foog muñ rek ma waaw doomu aadama moom surtout jullit muñ rek mooy ses ñu ànd ak demaak moom police commissariat Pikine jógee foofu ñu ne ñu yóbbu ko fale dalal jàmm ñu dem foofu ñooñu xool ñu ma doo ko mun a jot tey il suba suba tam boo ñëwee. foo ñu yóbbu ko setew ñu autopsie ko. fekk na mu gaañu ba pare sur le sang la. sur le sang la gaañu. fanaan fale jeudi ba ma dem foofu foo ñu yóbbu ko setew maam bëggu ma woon ñu yóbbu ko foofu mais comme dañu insisté ñu yóbbu ko ambulance yóbbu ñu bi foofu. balaa ñu koy autopsie bi pare. fekkee six heures demi jot na kaay dañ ne ñu yóbbu kayit bi moom dafa pare kayitam ba pare mu ne may foog nga dem commissariat Pikine ak terminal ngeen soog a dem mairie kayit yow bu ñu ñëwee ma soog a libéré waaw balaa ñu libéré daal sept heures jot na ñu ñaan foofu ñu jox ma ambulance moo ñu indi fii samedi bi lañu ko denc ah samedi bi lañ denc affaire daal métti na lool métti na lool. yow bi nga yégee ne ki nga xamante ni moo di sa doom ay atam toll ci 6 ans euh, ñàkk na ba kanam ci li nga xamante ni moo di bâtiment naka nga ko dundee en tant que papa. Oh, dund dund bu metti keroog ma ko xoolee woto bi rek sama rokkoon day wàcc waaw. Oh, boo xalaatee rek sama ronkoñ de wàcc hmm, ma wéni trop mammeen ba wopp loolu daal mënuma la expliquer lépp waaw. d'accord kër gi nga xamante ne nii bâtiment bi foofu la nekkoon maanaam borom kër gi jot na fi ñëw wala ay mbokkam jot nañ fi ñëw ngir xool leen wala ñu ne meeku leen. waaw ñëw na fi ci samedi bu ñuy yóbbu xale pour denc ko tase naa ñu ak moom fale ci armeer ba après mu continuer ñëwaat ba fi waaw ak benn waa ji ñoom ñaar la sax. ah ñoo ñëwoon fii ñëw nañ fi yow nañ jaale ji fii. d'accord moom mu jot na dugg école wala. non kii laa ko dugg laa ko dugal pour le moment bu amee sept ma soog a dugg waaw loolu moo nekk école léegi ko tam daara la commencé waaw waaw waaw. ñoo xale xale yi dañu bari foofu sax waaw bu ñu xaw màggee tuuti rek yóbbu leen école. wala. non am naa taaw mais moom moo sama taaw bu góor. waaw moom nga soog am si doom bu góor. Ah, ah. moom moo sama taaw bu góor moo tax affaire métti ci maam sama yaakaar yëpp foofu laa ko teg waaw. foofu laa te ba même bu may waxtaan ak nit ñi dama lay wax ne kii dinaa ko yóbbu ñu xëcc ko ba mu gaaw màgg waaw mais bu ñëwee rek noo ci dara te ku ndaw ku ma moo topp ci moom waaw moo topp Ousmane waaw moo topp Ousmane léegi njaboot ba fenn mois encore. taxawaayam moo tax ñu am sutura sutura bi gën a yokk waaw lu mu foot noonu lu mu am dara du ko laal foofu dafay indi si ma mën a mu ngi ne naa ko waaye lii ngay lii ak lii ngay def lii ak lii ngay def foofu la toll nga waa amul yéen ñaar yëpp kenn amul bu ngeen jubóowul dara du sotti gàcce rek la indi mais yàlla def na nañu bu nekk loo am sa morom dana xamul di am na nangam waaw noonu la ñu toll man lu ma am bu ma fayee ko dama koy ni lii lii la am affaire noonu la. fan ngeen ko denc Dakar fii wala seen village. Ameth Pikine bi waaw Ameth Pikine lañ ko denc. fi ngeen dëkk wala da ngeen fi luwe. ah dañu luwe dañu luwe waaw donc fale leen nekkoon Icotaf Icotaf kër bu ñu nekkoon ñu ne kër gi daa maquette pour ñu génn. génn boobu yàkkamte moo tax ñu ñëw ba fee mais suñu soxlay bari Icotaf la ñu dem soxla bari Icotaf la ñu xale bi foofu lay bi foofu lay jàng kii tam buy liggéey foofu lay dem waaw waaye Icotaf su woote si nama awa foofu la d'accord nga bëgg euh, sénégalais yi ñu jàppale la ko ah sénégalais yi li wax mooy ku nekk loo mun loo ma mën a dimbale nga dimbal ma waaw loo mun munoo sas kenn waaw munoo sas ku nekk da xool loo mun nga jàppale ma ci waaw loolu laa mun a wax dafay di leen nuyu di leen sant bi affaire bu amee ba léegi ñëpp taxaw na ñëpp taxaw na sama wet taxaw na sama na loo xam ne bu ma ko naroon dafa dañu ma wax ne yow demal toog ah yow tey du sa bis dama toog waaw sant naa noonu yëpp waaw sant naa suñu diggante fale fu mu am asidam fu mu amee nii ñëw keroog kenn desul foofu kenn desul foofu suba bi ngoon fii lay nekk ba ñu denc ko soogot waaw waaw sant nañ ba pare yëpp dem nañu ko benn fan waaw waaw waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax yan kàddu ngay tëjee. ah man daal xanaa ma sant leen sant leen Sénégalais yëpp ñi ma jàppale ay ñoo xam ne bàyyi nañ seen soxla fii lañ nekk ba ñaar fan wala ñaati fan yow fii lañ ko def ñeneen fii lañ am na ñoo xam ne ma taal fan ñeen ñu ngi ñëwaat encore dama seet ñu ne fu ma nekk nii war ma loolu lañ ma wax ñu la weet waaw. waaw voilà voilà Momadou Wetal mm-hmm. maa ngi leen sant di leen sant di la gërëm mm-hmm. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk internet yi bàyyi xel site bi di wasaare ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax seen doom jooju nga xam ne ay atam mu ngi tolloon ci 6 ans euh, yaayam demoon fóoti fu mu dem di fowe ak ay moroomam bâtiment bi daal di daanu ci kawam ba mu jaaree fa mujj ñàkk bakkanam waaye nag denc nañ ko ñuy sant yàlla rek bu baax a baax ndax xam ne euh, bakkan bu ñam dund bu nekk di nga ñam dee dégg ngeen papaam li mu wax mu nekk loo xamante ni lu metti la lu triste la aussi ndax Mouhamed moom euh, nu mu tudd sax Ousmane euh, moo nekkoon li nga xamante ni moo di taabu góoram léegi ngeen li mu wax ci lépp ci moom la ko yaakaare woon waaye nag xëcc bu dagul dikk yal na la yàlla may leneen loo xamante ne nii euh, mooy gën ci yow incha allahu rabi ñu ngi lay jaajëfal bu baax ku mu wax tamit ku ko mën a jàppale ak ci loo ko mën a jàppale rek nga jàppalee ko ko dinañu def li nga xamante ni moo di numéro am ku ci bëgg a jàpp rek nga woote foofu bu ko defee nga mën ko jàppale xalil euh, sama doom ji ma lay jaajëfal bu baax di leen jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah ak yeneen actualité jaajëf